Ousmane nuyu naa la. lépp jàmm. ci loo ne. waaye taw fee gaan bilaay yow. waaw mais <laughs> nu noonu baay. waaw nice bilaay di ñaanal gaan Ndiassé ndam rek. mais am na combat bu métti. ban combat. diggante ma Pam Ndoye. waaw yow loolu du Pam Ndoye ah. la ay góor lañ. waaw est-ce que dina yomb Pam Ndoye. Ah, xeex la rek Pam Ndoye Pam Ndoye jugee ci combat bu métti. ñu dóor ko ba muy bëgg a dee mu ñëwaat jàkkaarloog Abou Ndiasse. su ñëwaatee pour xeex ñu dóor ko ba mu bëgg a dee rek. est-ce que Abou Ndiasse daal yi Abou Ndiasse yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal liis ndam waaw. déedéet ma ci liis yow dafa nànkay bu ko yàkkamti benn yoon noo gisee combat bu Abou Ndiasse PAM. prix mu dox si kawam dóor dóor yu métti daan bar sëñ Bamba Mbàkke. mais depuis boo depuis ba nga jugee sa combat ba léegi kenn gisagu loolu. ah pourtant maa yow instant rek dal jàmm. ah ay làmb yu bëri. ñoom am na sax promoteur bu ma ne Malaw Seras neen da laa may sens. waaw. ñi ma ngaa bëgg ak Malaw baal ma baay bëri. non dama la ñeme ngaa bëri ak Malaw Seras laa. dama laa jox kanamu tapet. non non. waaw comme kay moo lool man bëri. jël ma may ma chance ñu bëre. billaay wallaay. yaakaar nga ne Malaw dina la jël. allo waatuma jël daa ne balance huit ans. mais yow benn combat nga def benn victoire. loolu daa daw sama yaram. dañ maa ëpp tur. fi waa toll nii moom da ngaa xew. waaw comme làmb la rek nañ bëre. Ah. waaw. waa Pikine jóg. ñoom ñëpp man bëgge ah. waaw. lan ngay wax ci Liss Ndiago dafa mbër fanaanoo me liis ñëw jël ko ne da koy la waatal ni su dëggalaatee boppam si lii mu jugee lu ko gën a métti fa la jëm mais ñu ci bàyyi nee nañu liis amul doole waaw amul doole baax na liis di xale di entraîné nga naa amul doole liis daa ragal loolu yow xanaa nga dof mais dafa am dafa mer de Ada Fass da teg lu métti mu jugee ci ba ko ratifié ñoom ñun neew si ñoom ñaar lan ngay na pare rek xale la dof la am na doole sooke la du bàyyi. est ce que xam nga dafa rek lay bëggee chaque jour mun na ma jëli Liss Ndiago. la daan Laurent Laurent. waaw na moo oto. waxal ak moom Zaa la dërëm jëndal ñu oto. géej na yoon ndékki ndékki bu riis. Ah. bilaay. waaw kontaan amal rek.